auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taalaa wa barakaatu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi ñoo ngi fii ci dëkk bu sell bi di Touba fas yéene fay ñëwoon tey ci bisu xasida bii nga xam ne moom la sëriñ bi woote woon Saxum Touba TV seetu murid yi fas yéene koo ànd ak yéen comme ni ñu leen ko waxee woon rek ñu ñëw fi fekk fi sëriñ Moustapha Jaxate xaadimul xaddim kenn ku ne xam ko ci liggéeyu serigne touba kenn ku ne xam ko ci yoonu murid taxaway gi taxawé ci jëmmi liggéey serigne touba ñu fekkon ko fi tay fassiyene ko nuyu fassiyene ko koo ci bisbu mag bi fassiyene ko koo jottali suñu kàddu fassiyene ko nuyu bu baaxa baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitani irajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على النبي الهدى والرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه ومن تبعه بسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم بركة الشيخ الخديم jërëjëf Serigne Touba est-ce que Serigne Touba ci Serigne Touba borom Touba moroomantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi fooy mën a nekk ci dëndu kaw suuf noo ngi lay nuyu di jiital ci nuyu bi mboolem kuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di nuyu bokki taalibe yi murit yépp xaasatan di nuyu nag ñi nu bokkal dëkk Sénégal yëpp di leen nuyoo fii ci Touba Mbacké almahrousa di tàllal loxo ñëpp nag ci sama jëmmi bopp kenn ku nekk maa ngi lay baalu àq su fekkee la ma la def xam naa ko wala xawma ko di la ñaan bu nu ko matewul it nga baal nu ngir jëmmi Serigne Touba képp ku nu ko ameel nag baal nañ la ko ci xol bu sedd guyi ngir jëmmi Serigne Touba di ñaan yàlla ci bis bu tedd bii bu màgg bii nga xam ni laajul wax sax daanaka yàlla mi tëliwul dara yàlla na boole jéggal kenn ku ne say rëcc rëcc sa digganteeg moom di ko sant nag cant yu amulu ko app ci xéewalu yu bari yi mu defal te tey jii ci la bokk tey jii ci la bokk ci xéewal yi waaye li koy gën a sant nag mooy li waral lii lépp mooy boole gi mu boole ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaan yàlla itam ci bis bii ak ba ca topp la ko jiitu yàlla lu ko neex rek lay def. yalla na bok ci likoy neex yagal fi cheikh mohamoudou Muntaxa taw ko ba yan bi mu yenu ci toolub l'islam bi ñu denk Serigne Touba mu eggalé ko fim ko bëgg eggalé nu nu ko ak mom té dajé ci ngërëmul Serigne bi lolu Serigne Cheikh Loum no ngi lay nuyu di la sante ñi nga xamni duñ den di leen ñaanal mukk di leen sant ci seenu taxaway ci bir Saxum Touba setu mouride yi ñu denk leen ko ngeen yor ko yoreen rafet yow ak Serigne Cheikh Sarr yéen ñëpp bàyyiwuñ ak ñi fi dekkul ñep ñu ngi leen di sant di leen gërëm Serigne Omar Sall ak ñep ñi ngi leen di sant di leen gërëm euh, tay ji nak wax na ne du bisu wax li da daa ta ñak rek nu nuyo ko bokk taalibe yi wax ji mom xeyna bu li jexé moy wote bi nga xamanteni bi serigne bi wote nako xam ngeen ni bisu alquran mom bis bu mu am danaka tay nak ñu dem ba jamono xasida yi war a am bisu boppam ni magal gi amee bisu boppam muy lo xam dañ koy pérenniser day sax ba faw waxtu wo jot muy am serigne bi de ngeen soññee bi mu ci soññee né dafa bëgg def ko ak sante sante serigne bi la la ci jublu sante serigne bi bis bi nee sante serigne sëriñ la ci jublu xam nga magal gi kenn moomu ko yonent bi moomu ko sëriñ Tuubaa moomu ko yàlla rek ko mom bis bobu magal gi yalla dong lañ ci sante yoon kenn nëw ci dañuy yalla ci sante te mënuñu ko sax waye niñ ko sëriñ bi digale bi nak mom dañ dañ ci sante sëriñ Tuubaa fas yéene it mu doon ab tambali ci liggéeyal sëriñ Tuubaa bisub tay bi mu doon ab tambali mu melni ni kon mosunoo def dara ndax kuy tambali musu def dara fofu li ma fi wax lu gatt rek moy damay teunk rek fi nu nek tay ci Touba mahrusa bokk yi ñu sétane ci biir réew mi réew mi amna lo xamni dama ko jangat lima bëgg wax lepp xaju fi moy bi nek serigne ak tranquillité bi ni mu nekk ku serein ni mu tranquille fan lay puiser fan lay xëcce dooley tranquillité boobu dal googu mu dal ku ne xam na ni ñeenti at yi 2021 ba léegi Sénégal mu ngi jax socialement politiquement lépp économiquement réew mi mel noo xam ne dafay déng-déngi sëriñ bi nag li loolu li li mbir yi nit ñi di jaaxle jaaxle jaaxle jaaxle moom am na xam naa ni fen rek lay xëcc yu fam mooy ci Serigne Touba xëccewu ko feneen ndax dal gi muy àndal ak nit ñi ñàkk gi ñàkk dal ak jaaxle gi nit ñi jaaxle moom foo ko fekk sourire bi moo lay delloo si muuñ moo lay delloo si mu mel ni moom yëgul ni moo la gën a yëg xew ci réew mi lépp mu mel ni dara daa xewul ma ngay ma ngay def bisu ma ngay def lu bisub zikrulaay ma ngay def ma ngay def lu bisub xasaayit ma ngay def lu concours ñu ngay def concours grand prix Cheikh Ahmadou Bamba sur le Coran pour le Coran ci biir màggal gi loolu yëpp di am nga xam ne bi bu nekk mi ngi moom dafa focaliser wu ci li mu bëgg nun nu dem ci guddeeg bëccëg muy xiir nu xiir tal nu ci leneen bañ doon suñ soxla wala même luñ mën a xalaat itam luñ mën a def itam ay débat yu am ci télévision ak internet ak réseaux sociaux yi sëriñ bi moom bëgg nun loolu bañ ñoo fab bi yóbbu nu li nga xam ne mooy sunu jëriñu tey di suñu njëriñu ëllëg muy sëriñ Tuubaa nat nañ ci am 95 5 yi ñu jox ko leneen wala bok 10 yi ñu jox ko leneen loolu mënees na koo deg 90 yëpp nañ ko jox señ tuwa xoolal bu mu toogee ba legi buy wax da ngay defee ni da da day daanu jël bala egalé buy wax señ tuwa dootu mom boppam ak fi mu toll ci at nit ñaa naan tollu déedéet nit ku tollu ci fi mu toll ci at yalla na yag lol ci kattanu yalla ti teewul sa yi wax ak yow dafa melni ah ndaw luy wax ak yow kon xam nga ni li am solo moy fi mu tollu way bi mu tollu mu am solo dañ koy ñaanal mu yag fi waaye deug la lu at yi mëna egg fofu itam moom amna lu muy dund lo xamni da mel ndaw lu koy dund rek muy Serigne Touba lool nak lañ ci mëna wax qasida yi nak lu ma leen ci wax dara yeen Saxum Touba yeen ngi wër dekk bi jere gene jëf ndax yeen ngi def direct man ma ngi koy seetaan ci sama téléphone wëlbatiku ngeen di wër dekk bi fofu dara nek xeyna mënu leen dajal lepp mais bëgg ngeen roq roq ngeen génne fa dara won ko ñi nga xam ni ñoo nekk ci bitim réew wala ñoo nekk ci biir réew mi te yàlla dogal mun ñoo teew fii ñaan gi ñuy ñaan nag dañ koy boole ci sëñ bi ñaan gi muy ñaan ci lañ koy dugal rek ba képp foyal waaye sori sori sori sori na nga xam ni noo ngi lay waajal ak ñaan goo xam ni bu mbir mu noppee ci biir xasiida yi ñëpp rek lañ koy tasaare tàmbalee ko di son di ñaan ñëpp ñaanal ñu fan bu gudd gu wér yaram ba yàlla dimbali ba li nu mébét nun nu bëgg koo ni ko sëñ mu taxaa waxee danoo tàmbali tey lañ tàmbali liggéeyal sëñ Tuubaa nu barkeelu ci wax jooju man tey laa tàmbali naa ko maa koy déclaré ñëpp maa ngi soog a tàmbali. loolu nag lan bëgg léegi ñun ñëpp nu ñaanal nu ci yàlla tawféexal nu nu ànd ko bokk yëpp waaye maa ngi jagleel ngërëm nag bokki soppee daaree Saxum Touba di ay soppee yoo xam ni. sopp jëmm ji sopp sopp liggéey bi ak sopp Serigne Touba ndax bu ñu may sopp di ànd ak man dara sama jëmm taxul Serigne Touba rek tax bu Serigne Touba nekkul woon loolu du am kon noo ngi leen di delloo njukkal di leen ñaanal di leen sant leen gërëm muy soppee daara Saxum Touba ñoom ñëpp ci li nga xam ni ànd nañ ko guddeeg bëccëg ci liggéey Sëñ Tuubaa bi nga xamante ni bi mooy jéem a fexe rek te te bay yenu sëriñ bi daj fépp ñu xam ko li ci des nak mom bis bu amate jot dinañ ci delu su ndax li nu li nu denc bari na lol ci lu wax bokk yi foko tek wess nako mën nuko wax legi kon dal seigne Cheikh no ngi len di gërem di len mel na ah sering, bi bala ñoo tenk ci cadeau yi rek mel na ne nit ñi eh, ñi nañ ñi ngi joggé ci ay ay ay gox yu fasanti ko di dugg ci dëkk bi amna na ñoo xam tane dañ leen di fekk ci seen biir kër ñu taxawal fa seen bass ngir bëgg doxal ngir xam nañ ni mbolo mi wara dajé ci bisu xasida bi ak ni ko nit ñi yëgee xëjuñu ci maam ci jumaa ji mais ñii nga xam ne ñi ngi waajal nekk seen biir ak ñi nga xam ne ñi ngi ndax dëkk bari nañ mbooloo bari goo xam ne sëñ bi loolu am na loo ñu ci mën a waaye loolu moom gis naa ci tey man lu ma lu ma lu ma xaw a yéem jaaxalu ma nag waaye yéem na ma mooy engouement bi am nit ñi ni ñu jóge tey ndaw ñu góor ñi dafa mel ni màggalu Tuubaa mbedd yëpp juróom benn mbedd yi jëm ci jumaa ji yëpp wala lu ko ëpp mbedd moo ci dugg da ngay doo am foo jaar da nga naan lii sax nit ñi xalaatu doo xam daal ni mu deme moo tax nag bu ma gisee kenn koo xam ni sa yëngu jéem na ci lenn lu dul loolu tey da nga nekk ci dëkk bi loola moom danaa xam ni xëy na dana doon aw ak càggante waaye li ma gis fii daal ci mbooloo ak ni ñuy ñëwee ak tàngoor wi ni mu mel dëgg dëgg dëgg dëgg wax dëgg yàlla loolu moom du ma wax dara lu rek am na luy ñëwaat loo xam ni war na noo doollee gën a jàppaat tu Touba te xam ni lenn nekku fi lu dul Serigne Touba lépp a ngi ci loxoom adduna ak àllaaxira nag loolu nag yàllaa ko def adduna ak àllaaxira mi ngi ci loxol Sëriñ Tuubaa yàllaa ko def kon lii nga gis nii tuuti la rek ndax lii moom màggal rek la lay maanaam ay prix kii la daal ay nu ñu koy waxee waa waajal màggal daal la mel ni loolu lay waajal màggal spécial daal moom mel ni mooy bisub xasida yi man loolu laa gis tey noo ngi sant li ma wax léegi soppee daari Saxum Touba ndox mii ñuy tas di koy yóbbu ci kër yéeg yëpp ak fi ñuy jàng yëpp ñu sant leen ci gërëm leen ci mooy ndox mu sedd mi nga xam ne dañ ko waajal mu sedd guy ñu fekk ñuy jàng xasaayit ñu nekk ci mbedd mi lépp ñu leen ko jox ñu ngi leen ci sant leen ci gërëm jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sëñ tam kon ñu bàyyi leen ngeen dem ci liggéey bi noonu tam nu wéy ci xasida yi incha allah jërë ngeen jëf ñu fekk ñëwoon nañ ci kër gi fekk fii bi nga xam ne mooy suñu soi ci barabam bu sell bi nga xam ne fi la nekk di liggéey la Serigne Touba kon noonu leen di ko waxee rek noonu la ñu fas yéene ànd ak yéen Saxum Touba ànd ceeg yéen ba bi ñaan ñu fas yéene tàllal di dégluwaat ndigal rek jërë ngeen jëf maa ngi leen di dégg nag maa ngi leen digg fii tàmbali na màggal waajal màggal maa ngi leen digg nag ay ndaje suñu digg moom ay waxtaan yoo xam ne dinañ koy def ci sàq mi incha allah rabbi ci waajal màggal gi ak lu jëm ci màggal gi ak lu jëm ci sëriñ bi ay yu bari bari yoo xam daal bu ngeen toppee sàq mi rek dinañ ko gis incha allah kon ñoo ko déggandoo kenn ko ne fa nga nekk rek na la leer sàq mi liggéey suñu tubaab ba faaw rek jërë ngeen jëf